génnandoo bokkandoo quartier bokkandoo lépp maak moom boobi daal yàlla sunu borom daal ay mbiram moo yéeme sunu borom daal bu ñëwee sunu borom daal ñëw na sunu borom ñëw na. kañ nga mujjee gisante ak moom. yàggul yàggul maak moom yàggul sax barkaat démb rek ñu ngi déggante téléphone démb rek maa ngi doon wax maak Tafa Alam Daar sama koñ foofu maak taf ñu ngi wax ay waxam nii démb si ngoon mi nii rek nii maa ngi nii bi may fajar bi sax maa ngi koy gént nii. bilaay si misaal maa ngi koy génn moo sama sœur bi mu ñëwee ne ma sarak dafa gaañu dafa mel man daal xam nga lan laay mën a wax booy bi daal. lan nga dund ak moom loo xam ne tey des na sa bopp loo mënatul fàtte. maa ngi moom dëgg lañ dund parce que bu muy booy bu muy booy ba léegi daf ma mus a bëgg ma mus ko bëgg parce que suñu papa yi ñoo bokk benn bool bokkandoo lépp yaayam sama yaay lépp ñu bokk famille bi benn la. man bu amee combat day mel ne sam booy moom fa la dëkk sam booy yëpp a ko xam ñu ngi ñëw sax booy yëpp a xam. te loolu ñu bëri xamuñu ko ñu bëri xamuñu ne seen ñaari papa yi ñoo bokk nday ak baay. nday ak baay ñoo bokk nday ak baay sama rakk bopp la sama rakk la parce que booy waxuma parcelle sax booy yëpp ko bëgg seede yàlla sama daju papa da dafa ñëw foofu fala nekk suba ba ba fanaan sama daju papa. sama papa mooy magu papam dafa ñëw foofu ba ba fajar fala fanaan jamono yee passé rek combat mujj bi rek koñ ba la ñëw booy defal ko convoi foofu booy yëpp ko defal convoi moo tax booy yëpp a koy delloo njukkal booy yaa ngi ñëw. Sénégal ñëpp xam nañ senegal nu mu demee fii ñëpp xam nañ Sénégal nu mu demee Sénégal Sénégal bëgg bu ñuy wax yi mooy lu ñuy wax rek Sénégal. mun naa man du ma wax autorité yi sax parce que ñooñu gëm du ñoom sax du ñoom mais ñun ñoo war a jàppale suñu biir ñun comme ñun ñuy wax new di doole yi ñun ñoo war a di jàppale suñu biir ku si nekk xam sa morom ku si nekk bëgg sa morom parce que booy boo xoolee li ko dal dafa ñaaw booy mun naa ne dañ ko seetaan xam nga nit bu gaañoo sax ñu wax yenn yi parce que suñu borom moo sàkk dund sàkk dee sàkk dee sàkk dund mais booy bi looloo waral ma vidéo loolu ko bi mu feebaree premier bu muy feebar man. woo na ma ñu waxtaan ma ne ko rak di nga xam ne nag am nga ay mag même ñun suñu loxo bu jotul ñun mun nañ dara mun nañ pacifique duñu xeex duñu xuloo mais dañuy wax dëgg bu nekk si taan bi parce que booy bi dañ ko seetaan booy bu ndaw booy man magee naa ko ay huit ans xale bu tuuti la doon taxaw waa Galem nekk soutien de famille gars am yëpp xam nañ ñu mu demee ñu mu daan àndal depuis booy benn bu góor la booy bi papam la dono, papam la ñuy wax gaynde et saama si jola ñu koy wax gaynde sam papa gaynde moko ko jur bobi bobi dafa jeexal téere dal daal parce que bañkat la won motax bom mu duggu tak ngembam di bëree mais yalla def ba ndogal am natu am kon gars Senegal dal daal mooy dañ lay seetaan bo dewe, ñuy ñëw di génne sen affaire yi di def li senegal mo mel Senegal dafa bëri ay faux senegalay yi ñoo faux moo tax ñun néew di doole ñoo wara jappalé suñu biir taxaw doon ben say andando ku ci am tolof tolof ñëpp juk xébu ñu ñaadërem juroom ñu jappalanté mu jëm kanam mais Sénégal dañuy xol nit bu nekk ci anamam nekk ci mën-mënam ñu ngi koy bëgg mais bu nekk ci tolof tolof ñëpp bay ko bu génné adina premier jour deux jours faté nañ ko sénégalais yi believe sénégalais ñom pour ñom yalla seen côté la nekk ñu fo bari lu mu leen wax chaque fois rek mbeuri duñu duñu ay mbeur man mu naale mbeuri duñu ay parce que duñu ay mbeur mbeuri ñom duñu ay. du ñu ay gaynde duñ si lenn parce que yow munoo nekk mbër ngeen bokk benn association association ngeen ay mbër ngeen seen rakk bu ndaw tout tànk feebar ngeen di dégg feebar bi ñu ne la feebaru 1000 francs la ñu koy seetaan ba mu nekk feebaru million ba mu génn àddina moo tax mbër yi du ñu ay mbër mbër lu ñuy wax mbër du ñu ay mbër mbër mooy ku xam ne day takk ngembam ànd ak ay gaam jaante ko ku si am tolof tolof ñu bàyyi lépp réplié wu jàppate ko moo tax mbër yi du ñu ay boo xoolee sax mun naa ne du ñu ay référence man ragaluma si dara du ñu ay référence parce que man xam naa leen man bu may booy ba léegi si làmb laa nekkoon dam leen fente parce que nu ñu boo xoolee booy bi rek nga xam ne yow ñoom ñaata mbërë fi nekk CNG ñoom lu ñuy jëriñ si town bi sax CNG dagg moo ni booy bi booy bi sax dagg nañ mooy nam mooy nam bu ñu dagg ñoom delloo ñu ko njukkal parce que booy bi feebar na ñoom jóguñu tey ñoom mënoon nañ ay papiers yu ndaw rek la ñuy bind ministère mu jël booy bi en charge ñoo ne dossiers yi ambassade booy bi dañ koy évacuer yóbbu ko mais balaa ma dee ñu naan ay dañuy xaar ay ay njiit ay autorité loolu la dafa ñaaw sax yow pikin tam xaw nañ seral quoi pikin parce que kii doomu pikin la Pikine la dëkk Pikine la màggee fu ñu koy suul sax Pikine la parce que duñ ko suul feneen fii nii lañ koy suul gars yi ñaal ko ñun ñëpp def doon benn say mu dem àjjana mais am na nu ñu seralee ñoom tamit parce que bu ñu amee koo xam da leen représenté hors site war nañ taxaw mbooloo doon benn nu mu dee ñu takalé 10 francs 25 30 francs 15 francs dina doon ben say ñu djébal ko boy, bi ñu faji jiko mbeuri ken kenn ak mbeuri way bu mo wax ci waxu mbeur mbeuri mbeur bu si mu ngi ay ñi wote VIP ñu ngi bëri ay 50 millions wala bok deug la walu deug ñun ñëpp xam nañ lepp ah bo jëlé tribrik yobuna boy bi Babylone kenen bu ñëwaateen faj nañ ko do boy bi day ñëwaat si jamm mais day mel ni ñoom xam lan lañ bëgg xaara ba kanam da nga leen gis ñuy ñëw gis leen ma man dawale wu ma noonu man man xam lu may dawalee man ma ñàkk nit ñi am moo ma gënal man sama mafia man taw bu ma am dama koy dagg axlan wa saxlan taw bi day nekk ba dagg dërëm 15 ñëppay laal mooy café gi bu ñëwee kurul Baay Faal sa da ngay naan man loolu laa xam man loolu lañ ma yaree xol sama xol ne parce que dama yëg dama koy yëg man man boo bi bu mu koy mujjee gis du ma yàlla de mais xam naa ne mooy loolu parce que dama koy yëg parce que sama sœur bi balaa moo ñëw bi mu ko gisee laa xam ne wax booy bi la may wax parce que sama sœur boobu moo ma yàgg wax wax booy bi parce que moom tam da ko taf sama mag bu jigéen moo topp si moom laa topp Yacine dafa ñëw bërëb ba ñuy joobee mu daa ñëw rek commencé jooy sama booy yëpp xam ne moom la ñuy wax bi mu ko waxee booy booy yëpp a takk contagion bàyyi lépp ñun dañoo arrêté lépp man même bu dul moom sax man fépp sénégalais fu mu ne néew di doole boo amee tolof tolof man mu si taxaw même bu ma munul sax mu naa si def ay jéego mais gars yi nañu war a mbooloo mooy doole dañuy fàtte loolu Sénégal Sénégal benn gox la benn gaal la Sénégal chrétien beeg jullit beeg laayan beeg murid ñëpp a yem mais dañu bàyyi dañu bàyyi jàmm si yéen jàmm si yéen jàmm si